lay tee maa jóg way jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de fow ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew waayi nga te waayi nga te faral nga te fow nga keluma bi da sellal yow yàlla jox barke soxna jaara bu defan suqat cuune duñu wan ki ñuulu dolle da xëju cim nen soxna jaara la ñuulu mosula julli te mosula julli te wildul loola kay sangam tuubal daldi wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam mbokk yi nag ñi ngi fii nga xam ne moom moo di ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides ci Poroxaan fii nag gis ngeen ko fii sama loxo jëm moo jëm ci barabu Soxna Jaara fële la rang gi commencé parce que luy toll ci un kilomètre diggam ak bërëb bi lépp rang la sama côté càmmooñ jigéen ñi ñoo fa nekkee sama côté ndeyjoor góor ñi ñoo fi nekkee am na sécurité. am na it comité boo xam ne ñoom la ñu dénk lu aju ci wàllu teen bi ñoom ñooy saytu lu ni mel am nañu ay ndaw yu leen fi nekkal ànd ak waa polis ngir ñuy sàmm li nga xam ne mooy kaaraange gi di toppatoo rang yi fenn fu nekk nag nit jógee fa ñëw gis ngeen ñu yor seen ay xotti bidon ngir fa yéenee barkeelu ci ndoxum teen bii nga xam ne soxna su tedd si moom moo fi daan root sëñ bi foo jógee. maa ngi jógee ba Touba la jógee. Touba la jógee. Touba la jógee waaw ndox laa bëgg ndox. fii ñaata temps nga fi def. yàgg naa fi def midi ba vraiment midi. midi ba léegi yaa ngi ram. waaw midi ba léegi instant ñu ngi heures. waaw ba léegi ñu ñaari waxtu. waaw mënu koo yegg mënu koo yegg kay. waaw lépp soxna see la ko jaral. barke Serigne Saliou Mbacké. bilaay wala taala moom rek moo ko jarale. léegi bëri na bëri na. Ah, bëri na bëri ay kii de sax waaw bëri na bëri na kay. saa yi la nga yanu diis waaw bëri na de te a yendee. waaw incha kay. Ah. bu sëñ bu bi. Ah, maa ngi jégalu man mu ko rob sëñ waaw ñun ñu ngi jógee ba Tambacounda. Tamba kii nee na Tamba la joge waaw Tambacounda lañ jógee waaw. aywa eh, boobaag léegi ñaata temps nga fi def. fii midi ba léegi maa ngi ran ba. ñaari waxtu pratiquement waaw ñaari am ndox mënaguma am ndox waaw. nga àgg ci biir. incha allah fas naa ko yéene. waaw la ko jaral. waaw jaral ko ëpp sax. da ngaa yenu lu diis la bëgg koo yéene ko daa ni de. waaw <laughs> yéene ko Porokhane. aywa ñu ngi fasaaleel murit yëpp. ndeysaan yàlla may ñu ak taalibe gu nangu rek. ndeysaan suñu amee taalibe gu nangu rek. ñàkkatuñ dara. di nga ñaan ci élection yi jëm xanaa jàmm am. yàlla def jàmm ki gën ci réew mi suñu borom jox ko réew mi mu yor ko ci jàmm. macha allah Sénégal jëm kanam. jaajëf Tawfekh. Mbaye gis nga ko kooku Tamba kii Touba ñu xool suñu mbokki soxna yi kii de sama yaay booy sama yaay maa ngi lay ziar. ah kay yal nañu naka la. tur wi Khoudia Ndiaye la. foo jógee ñëw fi. maa ngi jógee Touba Jannatu Firdaws. Touba Jannatu Firdaws mbay kii Touba la jógee ñaata temps nga fi def yàgg nga naa fi trop. Ah? naa fi. ba léegi mënagoo yegg. mënaguma yegg yow nit ñi butéel la ñu yor mais nga yor siwoo. mbay kii xottu siwoo la yor siwoo xër rek xër ci ah. maam jaara rek dañ maa jox ay siyaar te ma bëgg bu ma demee kenn ku nekk ma tàngal la ne la barkeelul sopp maam jaara rek yal nañu ci yàlla defal tawfiix amiin soxna si foo jógee man maa ngi jóge fu ñuy wax euh, Tamba Tambacounda gis nga ko am na ñaari Touba ñaari Tamba mbay lu yéeme la nak ñaari góor ñaari jigéen ki njëkk a dal Touba la jógee ci góor ki deuxième ku góor ki Tamba ñu ñëwaat ci rang ñi dal ci ku jigéen ki Touba dalaat ci ku jigéen ki Tambacounda. Tambacounda ndax soxna jaara rek ca fajar la ñuy rang ba léegi. fii ah. nga sama ñaari bi rek mënumaa fexe ba root. ndeysaan waaw te bala maa ñibbi damay jaayante rek. ndeysaan sonn ba mu sonnoon. Ah. moom laa bëgg a sonn ba am ci ndoxam yóbbu ko Tamba. ku ma nuyu si rek ma jox ko ndox mu barkeelu. ngir maam jaara. siyaare na ñaata yoon nga ñëw Poroxaan. Poroxaan yàgg na. Hmm. ba may am fukki ba léegi maa ngi ñëw Poroxaan ba maa ngi sama juróom fukki at ak juróom. daayira nga àndal. dayre laa àndal. dayre dayre. Euh, jërëjëf. mu waa Tamba. kan mi ngoog Tambacounda la jógee mbay gis nga ko. voilà gis nga ko mbay Tambacounda la jógee donc rang baa ngi nii gis ngeen ko waa daayira bi gis ngeen leen waa ndag waa police ñoom ñuy amal li nga xam ne mooy sécuriser yëf yi soxna si. soxna si. waaw soxna si noo tudd. waaw man a Touba Guy Siar. Touba Guy Siar. waaw nga ñëwoon tey ci Porokhane di wut ndox. waaw di wut ndox. tamit ne rang bi metti na de. torop yàgg ngeen fi lool yàgg nañ fi torop kay. naaj bi tàng na ak ci torop waaye ko. ndeysaan daan ko fekk ay déwén déwén baak seelu xadim rek. amiin yàlla mañ fay fan bu gudd ak wér gu yaram. amiin teew koy déwén. jërë ngeen jëf. jërëjëf voilà kon mi bi soxna si. <laughs> waaw Touba. man ci Touba. Darou Minam daayira nga àndal. kii ni ñu koy waxatee kii suñ sooy Ibou. Mam Diarra Mam Diarra. waaw wut ndox. ndox mi jafe na de. waaw mais instant baa ngi dox. waaw aywa kon mi ngoog. aywa. waxee ak yéen fii ñuy waxee ak yéen bi rang bi xat na lool donc voilà voilà donc gis geen leen am na ñoo xam ne nee nañ ci fajar ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne nee nañ depuis deux heures de temps ñu ngi fi donc ñuy wut li nga xam ne moom mooy ndox. Euh, ci teen bi wala donc gis ngeen leen ay xale yu tur tànk ñoo ngi nii ay xale yu ndaw ñoo ngi nii am na ñoo xam ne aussi duñu duñu rang dañuy nekk si barrière yi dañuy gis ñu baax ñoo xam ne mën nañ leen a jël wutaaleel leen ndox voilà soxna si na nga def. maa ngi fi. foo jógee. Mm. waa Kaolack la nga ñëwoon tey di wut si ndox fii ci teen bi. waaw. Euh, yàgg nga fi de. yàgg naa fi kay moom. kon rang bi métti na. métti na trop moom. soxna see la ko jaral. billaay ëpp na ko. looy fas ci ndox mi. même fas ci ndox mi. Oh. wér gu yaram laay ñaanal sama waajur bu jigéen ndax dafa xaw a tawat. moom a indi ci rang bii de rang ko toll fii. wér gu yaramam dong ma fi indi. ndox mi daal bu ci naanee rek. mi daal. Uh-huh. moom bu ko naan naanaan daal la ci am taw feex mu def ci yaramam daal. moo tax moo ñëw ba fii. Uh-huh. rang-rang bu metti bii rek. yàlla daf ci taw feex daal. kon mi ngoog mhm. ëpp na ko nañu dugg nii voilà. liggéey bu am solo fi nga xam ne moom moo di ci Poroxaan soxna si na nga def foo maa ngi fi man Mbour laa jógee. Ah, kii waa Mbour la Mbaye Seck kii Mbour la jógee da ngaa ñëwoon di wut si ndox. waaw damaa ñëw raa ngi saf na de. <laughs> waaw saf na moom yàgg nañu lay fas ci ndox. a ah, xanaa lépp rek. Ah, waaw ndax xam naa ni moom mënul yomb ndax ki tax ñu ñëw fii moom yombul woon ci moom kon ta yomb ci ñoom looy fas ci <laughs> rek. bañ am ñaareel. <laughs> non ma ñaareel laa xanaa kay kon bañ a am ñetteel. <laughs> loo bëgg a ah, <laughs> soxna si na nga sant rek. tur wi. Aminata Gueye. koo jógee. loo ñu mën a wax. xanaa sant soxna Dia. waaw Njaareem ñëpp a ngi lay seetaan. waaw noo ngi leen sant rek. yàgg nga fi de. di leen gërëm bu baax yàgg nañ fi foofu ba tey noo ngi tàng waaye soxna si jaral na ko ndax liggéey wu rëy mu liggéey fii. ku ci bara bokk rek war ngaa sant yàlla noo ngi ñaan di ko teewe déwén yu bari lii de war naa tax jigéen ñu nekk góorgóorlu jigéen ñëpp a noo ngi koy teewe yàlla na ko teewe ay déwén yu bari te sant maam jaara bu sax yéen ñu jëlit yàlla yi ñu waxee ak yéen gis ngeen leen sama côté droite sama côté gauche lépp ay jigéen la góor ñi ñi ngi le donc gis ngeen leen yaakaar naa fii ci Poroxaan moom lii ñu fi gis war naa tax jigéen ju nekk jiima góorgóorlu liggéey euh, ngir donte nag mel ni soxna jaara moom yombut waaye nag ñu jim ko roy les forces de défence et de sécurité la police ñi ngi noonu di def seen euh, liggéey di leen remercier bu baax ci liggéey bu am solo bi voilà donc gis ngeen leen dugg nañu ci biir am na ñu ñeneen ñu ñu gis nag ñuy sàmm kaaraange gi ak worma ji ñu sol ay euh, déguisement sol ay déguisement ci biir voilà xam naa bu fekkente ne je pense que porte bi nii la sama caméraman ñu ji ma xool ñu ji ma xool côté bii saytu lan moo fi am ci biir teen bi. saman sa njaay yi mbokkam saalan maaram walaalal sëñ gaawaan sëñ gaawaan rekki ban jaamam jam say la jam baatin bambal kami xaadam soog ndeego la jébbal saalan sa dem rootil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 la gi yemay maam Mor Jaara yéen a jaay Bamba yéen a moo pëg pay jëf moo waral maam Bamba abduli la muy jëf yéen a waral keroog buuram yéefari la muy jëf yéen a waral keroog dooram moo tax abduli war nay jëf te boole kooku yéen ginnaaw bi nga xam ne ñëw nañ ci teen bi gis ngeen entrée bi bi ñuy dugg rang bi yàggaay bi xataay bi lépp soxna si jaral leen ko am na ñoo xam ne nañ ci suba ba léegi lañ fi ñëw am ñoo xam ne nee nañ midi ba léegi ñu ngi fi te mënaguñoo accéder ci teen bi la ko waral nag mooy bariwaayu mbooloo mi kenn ku nekk di ñëw di sàkku si barke ci bërëb bii mais liggéey bi nag dafa am structure dafa am nu moo xam ne noonu lay doxee muy jëwrin yi nga xam ne gis ngeen leen ñu sol ay déguisement ànd ak seen ay jëwrin ñuy saytu li nga xam ne mooy teen bi ak liggéey bi moo tax nag sëñ Muntaxa kan mi ngi nii ñu taxawal mu war ñoo wax liggéey bi am solo bi nga xam ne mi ngi am fii ci teen bi ak mbooloo mu bari mi nga xam ne ñu ngi fii ñëw naka la ñuy doxalee liggéey bi bi yaa ngi ànd ak Sene Vision ak 24 actu ñu ngi lay wax salaamaaleykum. waaleykum salaam wa di seen taxawaay waaw liggéey moom ni muy demee mooy noonu rek ñi nga xam ne ñoo ko seq mooy njabootu Sëriñ Muntaxa muy waa ahlu tarbiya ak ñenn ci ñi nga xam ne euh, ñoo nekkoon Daaru Tanzil di lépp lu njabootu Sëriñ Muntaxa ñenn ñi sëñ bi leen yaral boppam. ñenn ñi sëñ beereen leen yaral boppam ba wàcce leen ñenn ñi ña nga fa ba tey di sàkku ngërëm liggéey bi nag ni nga ko gisee dañ ñuy xaaj mbooloo mi ñenn ñi ñooy féete ci teen bi ñenn ñi féete ca barab ba ñenn ñi féete ca jàkka ja ñenn ñi féete ca kër soxna jaara ya waaw boo defee fii fi teen bi nag nga xam ne man fi laa nekk def nañ ko ay sàppe yoo xam ne jigéen ñi ñooy bokk sàppe góor ñi dañ leen di beral seen sàppeek bopp bu dee ci bu ñëwee ba ci teen bi am na ay buntu bunt yi nga xam ne góor ñi fa la ñuy duggee bunt boo ne fa la ñuy génne bunt boo xam ne fa jigéen ñiy dugge ak bunt ba ñuy génne bu dee ci biir am na ci biir élément yoo xam ne ñoom ñooy ŋecc teen bi ñoo koy wëgg buñ jukkee ba noppi am ñoo xam ne ñoo koy jël dugal ko ci bassin yi am ñoo xam ne ñooy jël butéel nit ñi ak sooy yi di leen defal ci ndox waaw loolu daal daanaka mooy tënku organisation bi. mais amul genn pëcc xoo goo xam ne it nemmeeku nañu ko fi lépp mi ngi jaar yoon. waaw lépp mi ngi jaar yoon moom donte nag du ñàkk léeg-léeg xëy na mbooloo moom fu ñu dajee mën naa am kenn ku nekk sa jikko nga fay indi moo tax waaye wax dëgg yàlla gisaguñ ci benn jafe-jafe moom. liggéey bi am joxe bi luñ ci laaj wala. waaw moom wax dëgg yàlla laajuñ ci dara laajuñ di dara kenn ku nekk da ñëw duy dem am na nag ñoo xam ne bu ñu duyee ba noppi danañ am yéene joxe addiya seen addiya jooju it lépp dañ koy dajale rek jox ko ki nga xam ne moom moo yilif liggéey bi mu suñu bas boroxaam kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mu mel ni it rang bi xaw naa sori xataay bi am na ñoo xam ne am nañu jafe-jafe aussi ngir ngir ngir ngir yegg si. waaw loolu moom am na ndax mbooloo mi xëy na bariwaay bi mooy tax rang yi daanaka day dem ba ca jumaa ja wala kër soxna jaara ga waaye ñoom ñëpp lu mu ci doon rek ku xas accès rek li la fi indi moom bu soobee yàlla da ko am ba mu doy moom. merci beaucoup kon mu nekkoon jëwrin mun Mountakha kan doon yëkkati kàddu ginnaaw bu nga xam ne dugg nañ. jëlal leen visite xoolal leen li nga xam ne mooy am ci biir teen bi nga xam ne ku tedd ki soxna jaara mi waral woote bi fii way juru ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Khadim fii la daan roote muy teen bu am solo boo xam ne ñu bari dañ fiy jógee di barkeelu gis ngeen am na ñoo xam ne Tamba lañ jógee ñii Mbuur ñii Touba ñii Kaolack ñii feneen ak feneen fépp ci biir réew mi ba ci bitim réew sax dañuy ñëw Poroxaan waaye Poroxaan képp ku fi ñëw danga dem ca barab ba di nga ñëw fii ci teen bi sàkku si fii ndox mu te sell mi nga xam ne jom jëmm ju sell ku barkeel moom moo fi nekkoon daan fi wuteem ndox muy soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso mbokk yi sant leen gërëm leen sant ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yore liggéey bu am solo bi nga xam ne nekkul lu yomb ndax mbooloo ñoo fiy dajee te mbooloo fu ñuy dajee bari na nit ñu bari te bokkuñu ay jikko comportement yi bokkul waaye ñoom ñëpp dinañ leen ànd wan leen ci ci dal euh, lijjanti leen taxawu leen ba kenn ku nekk la nga xam ne bëgg nga ko muy sàkku barke ci teen bi am ko kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla ñu ñëwaat fi déwén ak jàmm fekkaat leen fi àndaat ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.